prix bi 2000 francs kese la lay dikkee Assane Ndiaye ak Baol production ànd ci ak sponsor yii di Kay Distingo huile J'adore Weasel Money ak Albourakh automobile mi ci oto yu baax yi gën Touba bu baax. gis nañ nga fecc yëngal dafa mel ni sa yaram dafa tàng de. waaw tey géwél yee xew la te ñun ay doomi géwél lan xam nga waaw moom suñu bës la luñ si deful rek mooy loolu dañ koo mënul quoi ndax caat suma grand la quoi. mais sa frère sa xarit sa doom day caatu géwél xew la tey naka nga ko gisee tey. waaw tey gis nañ ko xam nga kon niñ ko daa gisee rek ndax xam nga moom jàmbaar la quoi a nañ lii si moom moom sa yéen ko gisee nii lañ koy e doon bëri. mu am combat nag combat bu rëy di bëreeg nag champion ndaanaan tamit. waaw ndaanaan bu bëggee fanaan ci ndaali lay naan ndax caadu ngeewal du nekk ak sekk ndaanaan ndaanaan di ko jaaxal kon xam nga dañuy ñëw rek jaar fi mu daa jaar te yaakaar naa ne naa dem kër xam na bal bi ray quoi. mais booy Dakar du jaarukaay de. waaw Boy Dakar moom comme ni mu ko waxee rek Boy Dakar du Boy Dakar Ba la te caat mooy loolu xale la ne si yoon xam nga lamb ko ak fu mu a dem ci lamb quoi kon yaakaar naa ne Boy Dakar war koo téye si lamb am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax. maa ngi lay bëggee. loolu lay bëggee di wax waa Yoff nag man am naa combat le 27 février maak armée 2 di si woo ñëpp xam nga di wax combat bi li ma daa wax rek namu ma ci xooñ ceeb laa ci nam incha allah rabbi di ci woo ñëpp di ko wax ne mu ngi bëre koo xam ni di woo ñëpp ñëpp ñëpp di leen wax seen rajo xuraan bi borom la safta du doy incha allah le 27 bu wàccee arène nationale di leen gis ñun gis incha allah ok dooli ziar yaa ci lan nga nekk sant nañ alhamdulilah tey nag seen doom day di open press ah naka ngeen ko gisee waaw sant waaj nañ ko si xel mu dal te am nañ confiance si moom di ko ñaanal le 16 yàlla defal ko ndam ak mboole mbër mu si bëree si jour boobu mbër ngeen ki mu war a xam nañ ko bu baax xam nañ ko tax ñu jël ko waaw ndaanaan la waaye ndaanaan lay bëreel xam ko moo tax ñu jël ko di ko ñëw caat lan la war a kanam ñëw caat lan war a bëre Boy Dakar waaw caat lu mu war a yab nañ ko ndax yaakaar naa ne li ngay geeree ji li ngay yóbbu doo ko wax si kii waxtaan nañ see moom te su baa di ngeen gis ne caat ngewal moom moom laa ma ji si kàttanu yàlla loolu nga gis a incha allah waaw maa ngi ne la à suivre soreetu yàlla na ko yàlla defal ndam daal si kàttanu yàlla jaajëf saa da ngaa yiw sax tey ni nga ñëwee di macha allah. mais xam nga rek lamb moo évolué màgg kon fa léegi ñu àndaax lamb doon mbër xam nga rek teewul da nga war a mën a gérer sa bopp gérer sa carrière gérer sa lépp quoi waaw. lu gëj la gis loolu sa combat nga gëj a taxawul lu xew. gëj naa bëre depuis ma faru jar. actuellement doon nañ ma jox ay combat sax caatu Daara Fall jox nañ ko avance bi dem ba si biir boo yëmbal tamit même ñu ngi toog daal di xaar mbëri daal ñooñu nanguwul jël bëree ñun mais ñu ngi toog di xaar adversaire bu ñemee jël Petit L'Enfant rek ñu bëre. caatu Yoff nag war a bëri ak Boy Dakar naka ngeen koy yebee sax laa wax ba pare parce que ki muy bëre champion la. waaw caatu Yoff caatu caatu Ngéwél dootu mbër mu ndaw salaam doon na jeune boo xam ne tey ñëpp dañ ko ràññee salaam mu doon avenir doon espoir. kon lamba ji nii xëy na amateur yi ñoo xamul mais ñun xam naa xam nañ ne laaj lamba ji incha allah jaatu ngi woon da koy daan dem ndaanaan la de. ndaanaan la kenn weddu ko boo Dakar ndaanaan la champion la mais teewul moom fu kat champion bu commencé jeexee fa la jaatu ngeewul commencé te ñu ngi ko ndam si barki seen alimam. a bëree li mu doon bëri mu ko changé ndam lii gàllaajam mooy saa ne lii koy may ndam saa ne saa su ne ne si loolu. adversaire bu mu tax mu changé bëreem li ko doon may ndam na si nekk rek te incha allah yoof yam nañ ko te xam na li nga koy xaaree incha allah. gën a la bu baax a baax jaajëf. waaw Bokar ñu ngi lay léegi nag da ngaa leer yaa ngi lekk sa xaalis. Bokar lekkuma dara. xanaa da ngaa bàyyi bëri. non sax damaa nekk sama ruq rek. waaw ànd ak ñoo xamante ne tamit ay borom doole la ñoo ma yor quoi. waaw si loo ne. waaye maa ngi fi maa ngi si jàmm bu sa naa taxaw waaw gëj na taxaw nag ginnaaw bu ñu sant yàlla tamit d'abord ñu julli waayof sant ñu ngi sant yàlla bu baax baax di gërëm waayof yëpp. man dégg naa fi sa combat. waaw sama combat amoon na mais dañ dem ba si biir yaa ma gën a xam combat bi yàqu quoi waaw mais teewul boobu ba léegi nag ñu ngi daal. moo tànk lu yàq combat waaw ñoom nag seen côté la yàqoo quoi waaw si ñoom la yàqoo dem nañ ba si biir ñoom ñu dem ba si biir bëggatuñu combat bi quoi xëy na tamit dañuy bañ waaw yaa ma gën a xam pour booy bi mooy loolu Caatu Ngéwél nag ak Boy Dakar tey mu ngi open press mu ngi mu rek di bàkku rek di cëp cëpi. waaw combat bi nag yàggatul. waaw combat bi yàggatul boo xoolee dimanche la mais tey depuis booba léegi booy bi mu ngi entraîné te boo ko xoolee da ngay xam ne mu ngi si forme quoi ndax depuis booba léegi bàyyiwul benn yoon. biñ jàppee combat bi avant ñu koy jàpp yëpp da nga fekk si entraînement muy entraînement te boo ko xoolee da ngay xam ne am na changement bu baax a baax a baax a baax kon nag combat bi duñ kasi lu dul ñaanal ndax tey ki muy bëral moo ko jiit si làmba ko ko jiit si làmba mais Boy Dakar deful loo loo xamante ni Thiatou Nguéweul def ko si lamb. Dakar champion la de. champion la loolu ñun bañalu ka te daan ko foog ñu nangul ka doon ndax mbër boo ko respecté wul doo ko daan tey ñun gëm nañ ni la moo tax tey booy bi bëgg moom ndax mbëriñ ko doon proposé bari na mais li tax mu suwaawam la te gëm ni moom mën na ko daan xool Boy Dakar am benn faay bu mu am gëm na moom mën na fa daan te la moom moo ko yor te code bi bu jour ba dina li ñu fi dajale mooy open press si diggante Thiatou Nguéweul ak ki nga xamante nii que mooy Boy Dakar muy bés boo xamante ni que muy bésu le 16 ki ko tëgg di Assane Ndiaye Thiatou Nguéweul war see jàkkaarloo ki nga xamante nii que mooy Boy Dakar muy combat boo xamante ni que combat bu rëy la combat de la combat de sortie la Thiatou gi naaw bu ñu la nuyoo di la siyaar presse bi yëpp ñu ngi jàkkaarloo yow du la laaj lan nga préparé li nga xamante ni mooy bésu le du combat boo xamante ni ñëpp xam na ne combat bu rëy la sa diggante Boy Dakar. yee avant tout ñu ngi wax gars yi ah, di ñaan dégloo gars yi di déglu pour gars yi mën a am lu ñu yóbbu quoi mooy loolu. waaw ginnaaw bi di sant yàlla aussi julli si yonente bi di gërëm sunu ñaari waajur di nuyu ngor wakaam yoof yëpp di nuyu waayoof bu baax di jël nuyoo waayoof di ko teg ci loxo xalifa général maam di ñaan yàlla bàyyi ko ba ci kanam a kanam incha allah di ñaan Baye Abdoulaye Thiaw yàlla yokk ay leeram te tas di nuyu ñi nga xamante ni ñoo fi teew ñëpp di nuyu aussi tamit waa Kër Massar bu baax sama mafia alaaji paate bi maa ngi leen di bëgge bu baax a baax di bëgge waa Ikiri Yoff di jël nuyoo Ikiri waa waa Ikiri di ko teg si loxo gin ak Modja waaw ak yeneen champion yëpp ñoom Seck daanaan ak yeneen gars yi si des xam nga di bëgge bu baax di wax ni waa combat bi waaj nan ko waa dama ni bébé Birahima Ngok sama ganaar di ko bëgge bu baax a baax ma ne combat bi ñu ngi koy waaj waaj nañ ko ñu nax sunu waa écurie waaj ko ñu nax sunu staff ak sunu ay mbokk quoi yee dañ ci signature contrat bi nga ñëw meew sa adversaire jàmm nga ñëw gëdd ka dox si kaw meew ko sax mu wax nga ne ko mag nga ndax da nga ko xam avant nga koy jël waa aussi tamit di nuyu tamit Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ni moo nekkal Serigne Touba fii xam nga waa di nuyu sama Serigne Serigne Cheikh Fall borom gàcc di bëgg ñëpp ah non xam nga signature moom waxu signature la rek mais saa yi man wax booy Dakar dama gëm nit ay wax xajatu fi mooy jëf moo si des dimanche ñu ngi ñaan yàlla sunu borom bu ñu demee yàlla may lu ndam si kawam. booy Dakar dafa doon adversaire boo xamante nii que mbër yi nga mas a taseel yëpp bu naxantewul moom mooy adversaire bi si gën a dangereux si lépp ndëkk ndax loolu yaa ngi koy bàyyi xel. non non booy Dakar aw ma lu may bàyyi si moom xel li may bàyyi si moom xel xanaa daanu kase bàyyiwuma si moom leneen te bu soobee suñu boroom moom na taxaw dëggal boppam rek na taxaw dëggal boppam loolu laa koy ñaan. dañ seet mbër yu bari yi nga xamante ni dañ jàkkonteel ak Boy Dakar bu ñëwee Boy Dakar da leen di si li nga xamante ni que mooy supporter te bu ñëwee ni mu bëggee mu bëggee nga daanu noonu ngay daanu. waa da nga mbër yi mu doon bëreel man man mbayaar laa sañu maa dem ba bu ja di teg ay yenn baatu yabaate wala may xaddi wala yenn business yi. man su ma xaddee mbayaar yi dañ may tàpp mooy li may wax Boy Dakar lépp lu mu mën a def loolu moom la engagé man li ma engagé mooy li ma bëgg def te incha li la arrangé mooy li nga bëgg a def ginnaaw bi ma la bëgg waatee ziar la rek ni ko sa waay waxee rek maanaam Boy Dakar dafa wuuteeg ak adversaire yi nga daan bëre dafa bëre musul daanu ba combat bi mujjul la door am defet li ñu naan gaynde mer la fanaanoo est-ce que loolu yëpp yaa ngi koy sóor ci combat bi waaw Boy Dakar dëgg la champion la wane naa ay performance mais ñun dañoo nekk ay xale te ay xale lan te loo li ñuy ñun li ñuy wuti ragaluñu ko quoi lépp lu mu laaj barki Seydina Muhammad lépp lu mu laaj pare naa pour lépp. boo Dakar nekk samedi maa ngi koy wax boobu ba léegi yi di nelaw billaahi su ma yàlla woo woon bu ne suba la combat bi su guddi gi ne ma booy Dakar daan la ax ah ray la bu la gënal ma ne ray ma ñaanu ma yàlla mu daan ma mais maa ngi ñaan yàlla mi nga xamante ni moo am ndam am ndam si kawam incha allah mu may la ndam ci kawam loolu nga moo nekk li ngay ñaan waaye dañ gis ne maanaam da ko xaw a xeeb maanaam da nga ko sous bu ñu waxee nga ne pas Dakar la est-ce tey maanaam tey euh, ni ñu ko waxee rek maanaam champion boo naxante wala xam nga tey jii nii danoo nekk jël làmb ji ñun ñaar ku si nekk li nga yaakaar ni moo nekk rek loolu ngay wax ma tax li ma yaakaar gëm naa ni moo nekk te incha allah li ma bëgg a appliquer laay appliquer incha allah. Ah, tey ngay bëree ngay bëree ak caatu yoof ngay bëree ak ki nga xamante nii que euh, moom mooy doomu yoof si même bés bi xonge di si bëri si même bés bi tey jii nii que euh, ñeenti yoof am ñeenti sorti le 16 ñette ñu nekk arana. ya benn bis nekk stade Iba Mar nga war a bëri combat spécial bi caatu yoof war a bëri euh, euh, grand combat bi ndax bés boobu noonu du am pression si yow. non amuñu quatre combats sa boobu cinq combats am nañ keneen Tafa Gueye day bëre waale Jurbel moom tamit xam nga loolu lépp man dama jàpp ne sunu arrangement la ndax ñun ñëpp ñoo doon préparé ndoo tey jii nii ñooñu noonu ñu bokk ak ñoom bés non amul pression bu nuy yokk amul bu nuy wàññi. di ñaan daal yoof gépp am ndam incha allah ñu ñëw savouré. am ndam lu seddu guy si barke alxuraan. bëri Dakar nga nii nag jàkkaarloog yow loo koy wax jour ba. waaw booy Dakar mooy li ma koy wax avant aussi tamit di xam ga di bëggee di wax ni tey la sanu tuuru maam Jérémy ngeen ñëw fekk ko fi kon sunu open press bi passé ni la demee woon xam nga. di ñaan mu ñu yàgg koo feete ay at yaa mu doon ay ngëneel. incha allah booy Dakar li may wax ak moom mooy lenn mu ñëw taxaw dëggal boppam kase. mu taxaw na taxaw dëggal boppam. bu xeexee. bu bu ma duma ko. bu bëree bu bëree ma daan ko di bëggee sama mafia booy caali yi maa ngi leen di bëggee bu baax. acca wootal booy secteur yi bu baax a baax. benn dama bëgg nga benn message non violence pour ses supporters. waaw. sa mafia bi seen yaram de. te nee na nga lancé message si sportivité non violence fair play soo paree nga woote. non ñun moom suñu booy ñoom duñ tooñ jug juguñu pour tooñ juguñu pour dara booy dem su dem supporter seen mbër moo leen ñor booy yi moom fair play seen yëf la xam nga dañ leen di bëggee ñoom ñëpp di leen wax ñu waaj rek. te woote di leen waaw xam nga di woo aussi maay woo ñëpp. waaw man moom bëgg naa sëg làmb incha allah saa yu ma bëree ñu ni caatu ngewel li mu andi. te incha allah bi préparé nañ ko te bëgg xalaat nañ ni bu ñu ba pare gars yi dinañ ni li mu andeeti incha allah. bu ñëwee lu mu bu ñëwee taxawul bë taxawul bëreewul ma fekk ko man maay xale. booy Dakar maa moom man maay xale bi man maa nekk si yoon moom daa nekk si yoon bi xëy na yàlla def na nag def na ay résultat am mais xëy na sunu borom moo bind te yamalewul man dama ko war a daan pour dem sama yoon waa di di wax ni tamit Seck Ndanane daa war a bëre le 27 février di wax gaayam ñu génn ñaanal ko bu baax a baax a baax wooteel. maa ngi woo ñëpp di woo waa di woo sama sama waa ñëpp di woo sama ndijaay Père Yaaku Mbaye ma nga xam ne moo ne sa kër ga di woo caas mbay di woo Bayaaku mu ndaw di woo Jogo Fall di woo Danger di woo Damay sek maa ngi woo ñëpp di woo ki nga xamante ne mooy soxna Thiawlaay Yaafaati soxna Ablaye Diouf Sarr di woo Ablaye Diouf Sarr sunu monsieur le maire moom moom nee na lépp lu war si bés bi incha allah dina ko def di woo Abdou Naar aussi di woo Njambe Diop di woo Moustapha Tall Mamadou Gueye di woo ñi nga xamante ni waa di woo Baye Seydi di woo ñi nga xamante ni ñëpp daal pare nañ pour jàppale caatu ngéwél ñu ñëw jàpp si combat bi gars yi mobiliser mobiliser bu takku incha allah ñu dem stade ma duma booy Dakar daan ko ñu ñibbisi incha allah. ñoo ngi lay jaajëf ok jaajëf.